taalibe yi ñu leen di nuyu kenn ku nekk si turam ak santam di leen ziar bu baax di baalu ñëpp àq tey baal ñëpp àq di jiital si nuyoo bi suñ kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci jotaay bi di jéggalu waa baax kàddu yi nga xam ne nii ñu ngi koy yëkkati seen kanam xanaa daf di ay kàddu ndigal yoo xam ne mënta ñàkk ñu sason ñu si guddi gi ñu jàllee xasida ak mooy bu naafion wax si lenn si li sëriñ bi wax lu si mel ne tarjumaan beeg turu xasida géeg yu demee noonu ñu jéggalool baax kàddu yi nga yéegal ci kanam kilifa yi kon bisimilah mooy bu naafion fii madaa i shafion xasida gi 166 bayit la 5893 huruf la deux mille quatre tomb la mil sept cent trente-sept maskayat la ci kaw mooy bi am valeur A mille soixante-treize maskayat bi ci suuf mooy bi am valeur I quatre cent maska lonk la mooy bi am valeur U douze maska ñaari yat yi ci kaw mooy yi am valeur an onze maska ñaari yat yi ci suuf yi am valeur in maska ñaari lonk yi 17 la xuruuf yi nga xam ne amul maska 1660 la sadd yi quinze la maska néeg yi cent vingt 627 la xasida mooy bu naafion mu ngi bokk ci xasida géej gi nee na sëriñ bi njëkkoon na koo def ginnaaw bi mu defaat ko nee na yonent bi moo ko santaat mu def ko xasida gu gaaw a jox nit xéewal la xasida tàgg la xasida gi sëriñ bi tagg na si yonent bi ba mu jeex te tuddul turam si biir xasida gi sëriñ bi dafa tagg yonent bi ba yonent bi jox ko léppam ba mel ni ku jeexal si la ko Abu Bakar Omar Ousmane ak Seydina Ali jox sëriñ bi li ñu amoon yépp ngir li sëriñ bi di way yonent bi ba tey sëriñ bi tudd na leen si biir xasida gi te tuddul seen tur ñoom ñeenti ñooñu bi ñu noppee saxaaba yépp ñëwandoo daal di joxe li ñu yore tarjumaan bi sëriñ bi bismillaahi rahmaani rahim la ubbee xasida gi julli si yonent bi maanaam yàll na yàlla dolli teranga ak xéewal sa suñu sangu ba mooy muhammad ak si ay saxaabam ak si ay ñoñam bi noppee mu teg ci salaatul fatiha maanaam yow buur bi yow mi nga xam ne yaay aji tedd gi yàlla nga dolli xéewal ci suñu sang ba mooy muhammad kay aji ubbi ñeel la nga xam ne tëjoon nañ ko mooy aji matal ñeel la nga xam ne jiitu woon na mooy aji dimbali dëgg ci dëgg mooy aji dimbali dëgg ci dëgg mooy aji gindi jëm ca sa yoon ba waaye aji jub ak ñoñam yàlla nga def tagg yi ñuy aji ñod di nit ki jëmee ko ci iman maanaam gëm islaam jëfi ndigal bàyyi tere yi ixsaan maanaam rafetal kuy jàng xasida gi yàlla nga ko def muy dëgg dëggi jullit yàlla nga def xasida gi di mooy bu naafi mu bokk ci xasida ya nga xam ne moom la jigéenu wuurul ayn ya ak xale yay joxe ñam sa aljana di wayantoo yàlla nga def tag yii mu bokk ci cant ya nga gën a bëgg jëm si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu lañ andi woon si xasida ak bu Nafi' waaye dañ koy tëjee ab soññe bu gàtt si xasida gii di nëhjul xadaayil aaj ngirub pajub aajo sëriñ Tuubaa nee na si nëhju ku sàkku mbir boo si farloo di nga ko am ku fëgg buntu boo fa saxee dinañ la ubbil ku téye boppam maanaam ku bàyyi si ay caaxaan dinañ ko boole si borom xel yi kon foofu dañ ciy déggee ne borom xel nekkul ki nga xam ne mooy lekk ka naan di sol yére yu baax borom xel mooy ki bàyyi ay caaxaan mu waxaane ku dul merloo bakkanam du gërëmloo boromam ku taqoo di xeex ak bakkanam dina texe buñ ko dugalee ci bàmmeelam nguurug neen waxtu la nguurug dëgg dafay dem ba faw dëgg dafay sax a caaxaan lu mu kawe kawe day mujj màbb day mujj suufe sëriñ Tuubaa nee na ci nëx ju teggin ñu rafet dina tax nga génn ci ak réel waaye dina tax say dëkkandoo tàgg la suñ borom jagleel na borom xam-xam yu am teggin yi texe jub ak tuyaaba sëriñ tuuba nee na si nëx ju kuy sàkku toppul yàlla kuy sàkku topp yàlla si lu dul teggin naka moom danañ ko xañ ak texe ak jariñu moom teggin mooy gën gi xéewal si àdduna ak àllaaxira dañu jëm moom teggin mooy leeral xol teggin yu rafet dina tax say dëkkandoo tagg la waaye dina la soril safara sëriñ Tuubaa nee na dénk naa leen yéen ñi sàkku dénkaat naa leen si bile téere teggin yu rafet ak jikkoy rafet dañ la wommat si ak ñub ñu ngi jégaluwaat bu baax kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko fi lu si jub rek ñu xam ne si suñ borom la lu si dëng ñu xam ne suñ jëmm yu xew yi la ñu ngi jégaluwaat bu baax wasalaamaaleykum laylatu mawlidi nabi laylatu mawriya bi laylatu ma'i taabi wa tuuri shi taazumi